première au Sénégal, symbole d'un pays sur les voies de l'émergence. L'un des grands projets du chef de l'État, le président Macky Sall. L'autoroute Thiès-Touba, axe majeur du plan Sénégal émergent. ونجني واخذله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفرس حدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالمين والتقي مسايا رب العالمين وجل بناي بناء وافيا يجرني إلى خير ثابيا وجل بنائي بناء وامل بسنة وعلم واجعل بنائي بناء الاعتداء والتقي عني كيد كل سيتداء ولتكفني دراسة سيتاني وعلمي الباخن في الأوتان ولتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاسلم سريعا جريد والجذبا جملة ما يدي وعن دار سليم عن نيسوان ولتدخل المسلم في يدي وفي هاري وثابتا وفي الهادي وفي والما والما ومسكني سليم الفجار وامن الملال الإيمان فجل ربي مننا المعجلة جالبا يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والخليل إليك وعدك فررت من سواك فكن بساك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا والنصير ولجميع المسلمين يا بصير وكسر الخيرات يا قلب الذي ورزقه نعم لك دين ولتثبتا في جماعة شقيم الصلوات الخمس دفبا يا عكيم ونجنا من سر هذا السمن وسر خيره وكل فتن والتقنا سر النزارى وسر وكل سجود والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيدان وزرما في الأرض الطرى والسماء من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل هامل جميعنا بلطفك الجميل وكن لنا كل نجاة وفلاح وافقنا لصواب وسلام jàll jàll Nós vamos ainda ter um mundo reche. Moussa sëñ Moussa Excellences, Monsieur le Président de la République, merci pour ce que vous faites pour cette ville sainte, merci pour ce que vous avez fait à Touba et merci à Serigne Sidi Serigne Abdou Lahad sa wayjur wa dañu woon da ngay dem ci xuru ngëm gas fa reenu bi yéene ak xasum toroxlu dagg fa xobu rëccu ak calawtanul yaakaar soob ko ci gënug tuub dëbb ko kuruk tabe togge ko saw raw ragal yàlla yàgg ko ci ndabal teggin naa ne ko koogos muñ say bàkkaar rot Papa Ablaye Mbaye porte parole du khalife général gannaaw da ngaa liggéeyal sëñ Tuubaa jëf ji ñëpp gis te Serigne Abdou Lahad waxoon ne soo ma defalee lu ñëpp gis ma la ba ñëpp dégg ko te defal nga ko lu ñëpp gis ci dëkkam bii kon taalibe yi ñu ngi lay ñaanal yal na la yàlla fay yal na nga am ngërëmal sëñ Tuubaa te ku am ngërëmal sëñ Tuubaa dootu ñàkk dara kon président bu yeboo sam xel dal infrastructure Ila Touba bii nga xam ne teraanga fariwu ko kaw jenn teraangay àdduna fariwu ko kaw te liggéeyee ku liggéeyal sëñ Tuubaa sam xel dal kon boye boo nga xam ne 2000 liggéeyal nga sëñ Tuubaa 2018 waaye 2019 jël nga carte yi am nga ndam premier tour ngay gagné ci barke sëñ Tuubaa murid yëpp dañ la ko ñaanal ñëpp taxaw nañ fas yéene le premier tour 24 février ma président Macky Sall palemi tuur lay jàll na nga sam na sam xel dal na sant yàlla ndax ku liggéeyal sëñ Touba sëñ Touba dana la fay te liggéeyal nga sëñ Touba. sëriñ bi nee na président mi ngi lay sant bu baax ci si ci sa yéene jure ji ci dëkkam bi def nga ci li nga man ak li nga mënul ba yàlla sottal ko tey ndax lii kat keroog ba ñu tax xeeroo ñi ëpp ci nii yaakaaruñu woon ne mën naa sott ci diiru juróom-ñaari kon nag bu ko suñ borom dogal yi tey war ngaa sant yàlla bu baax kon nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku ma defal loo man ma defal loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la jomb kon nag sëriñ bi nee na faaw mënuy su laa ñàkk sant mënuy su ñàkk gërëm kon nee na mi ngi lay sant bu baax ci turam ak ci turu mboolem jëbaru Sëriñ Tuubaa gi ak ci turu mboolem yoon murid mi ngi yeesala cantam gii nag ci liggéey bu rëy bii nga xam ne defal nga ko waa réew mépp nga ko defal waaye defaral nga ko Touba defaral ko waa Touba Touba nag bu ñu ko wax Serigne Touba moo tax kon euh, Serigne Touba kenn mësu koo liggéey di ko rëccu ndax moo wax ne képp ku ma liggéeyal binaa yashkuran wa azim qibali wa xidmatal ayaali turan aqbali kulli lazina shtaxalo bi xidmati wartafim gadan aza ka sadmati waxoon na ne na ma defal képp ku ma liggéey suñ boon defal ko loo xam ne képp ku ma liggéeyal dana ko ci ñeeb faw bi nga tey bunt bu rëy te gaaw ci suqali réew mi te Touba gi mu jëm Serigne Saliou Mbacke waxoon na ne yaakaaru ju tas nii nu yoonu kër Serigne Touba Serigne Touba nag dëkkam bi wàccuwaay bi mu am ci dénn ak démographie ak ci koom-koom ba tax ñu war fee def sànc yu toll nii li ci jëkk moo dina Touba dafa am wàccuwaay wu màgg ci Sénégal ak ci àdduna bi lu mat ay millions yu bari seen yaakaar nekk fi ndax seenu sëriñ moo fi dëkk at mu nekk ay millions di fa daje bàyyi ko fu ne ci àdduna si Touba nag nekk ci diggu Sénégal di xoolu Sénégal nekk motoru Sénégal kon ku fi indi yoon wi daanaka lëkkale nga Sénégal gépp muy penku bi ak sow bi ak gànnaar gi ak Saloum bokk na ci li yombal jokkoo gi ci réew mi muy dëkk boo xam ne dana indi lu bari ci koom-koomu réew mi ndax ay gor yu nangoo liggéey te ñu yar leen ci jàmm ak jom ak ñeme coono di demal seen bopp di dunde seenu ñaq nii leen ko Sëriñ Tuubaa diggale wa talabul xalaali fardun yentami li kulli muslimin bi xayri wax mi nag sëriñ bi nee na mu ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa lii mu doon buntu xéewal bu dul tëjooti ba faw ci yow président yow mi nga xam ne yaa ko indi fii ci dëkk bi di la xamal ni itam sag cant ci moom nee na am na tàmbali waaye amul fu mu yem ndax nee na yàlla suñ borom dalaa boole moom jëmb jëkk muy toog ci jaati jitaayu sëriñ Tuubaa nee na nga def ko kilifa def ko sëriñ def ko waajur jox ko ab cër boo xam ne dara mënu ca dolli ko bi yàlla doogalee itam mu nekk fi sëriñ Tuubaa nee na nga yeesal loola feddli ko jàppaat ko yeesal sa taali bi ci moom lépp loo xam ne def digal na la ko itam amugu ci lenn loo xam ne defoo ko kon nag nee na sa digg moom cant gi am na fu mu tàmbalee waaye fu amu fu mu yom kon nag nee na mi ngi lay ñaanal ci barkeb Serigne Touba yàlla suñ moom jàppale la dimbale la ba mboolem somb yu rëy yi nga xam ne am nga ci réew mi yàlla kattanal la ba somb yooyu. yëpp nga àggale ko ba teg ci bëtam nee moom ci boppam nag mi ngi lay sant ndax noonu la moo ko waxee ci làmbañam ndax nee na ma li mu bëgg kat mooy ku ko ñaana mu mottali ay yéenam kon nag faw ma ñaana ko yàlla dimbale ko mottali ay yéenam nee lim koy jeexale rek moom amuloo Serigne Touba Serigne rek la yaakaar moom la am mooy léppam nee na jël na si jëmm jii nag dénk ko Serigne Touba kon bàyyi na la ak Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. président yaa ko def mais président def nga leneen hôpital baa ngi nii président def nga leneen assainissement baa ngi nii président def nga leneen xoolal poroxaan nga ni dinaa defar këru poroxaan poroxaan soxna jaara ci laahi soxna mariama buso liggéey bi yëpp maam jaara waaye président procès da ngay maase ak moom boo maase moom yeggale ko ku yeggale sëñ Bamba procès boo bëgg yeggale Touba ilaa Touba ilaa Touba Touba defal ni ñu màggal Touba ilaa Touba président ca kaw ca kanam. ca Touba mbokk Sénégal. maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziyaar bu am fu mu tàmbalee te amul fu mu yem di ko teg ci loxo yu tedd yu sunu sëriñ sëriñ Sidi Mbakke Cheikh Abdoul Ahad ngir nga jottalil ma nuyoo yooyu ak ziyaara boobu ak cant googu nga jottalil ma ko sunu xalif général di sunu sëriñ di sunu wayjur Cheikh Muntaxa di nuyu di gërëm njabootu maam Cheikh Ibra Fall ñoom xalif bi woote na njaboot gi yépp ñëw nañu toog di nuyu mbokk taalibe yi di nuyu mbokk Sénégal di nuyu sa rakk ju baax ji wax léegi ci sa tur ak ci turu xalif général muy sëriñ Bassirou Mbacké di ko sant bu baax moom sëñ Bassirou bu sëñ Abdou Khadr Mbacké di nuyu njaboot gi yépp di sant nag bu baax suñu borom di sant it sëriñ Touba di wax jërëjëf sëriñ Touba waaye di waxaat jërëjëfati sëriñ Touba ndax du lu yomb li ñu dajale fii tey du lu yomb ndax projet la boo xam ni yéene moo ko lal te yéene ji mu ngi sukkandeku ci xam dayoo ak tolluwaayu Touba ci biir Sénégal xam àq bi nga xam ni war na am ci suñu diggante ak Touba sëñ Touba sànc ko wax nga ko fi léegi def ay digle santaane lu bare te ñu xam ni lépp dana ñëw kon nag li tax may sant mooy bi ma suñu borom xiiree ci tracé projet bu toll nii mu jàppale ma ci kàttanam ak ci ñaanu xalif bi may santaat di gërëm te ñu ñaan suñu borom yokk leer sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke ndax bañ koy taxawal moom moo ñëwoon ànd ak sëñ Muntaxa bi tey def ñaan yi bàyyi sëñ Muntaxa mu yàggali waxtaan wi kon seeni ñaan yooyu bokk na ci li ñu kattanal ndax projet quatre cent seize milliards du lu yomb waaye bind projet bi wut alal ju toll noonu am ko tàmbali liggéey bi mottali ko réceptionné ko loolu ndimbalu yàlla moo ci dugg ak ngërëmal sëñ Touba kon nag loolu tax ma sant bu baax a baax ndax euh, wax dëgg yàlla projet bu am solo la te it danaa si ñëwaat léegi sama discours ci nasaraan ndax euh, dafa am nu ñu ko tracé dafa am it lu bare bare lu ñu tàmbali ci Touba.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 loolu dafa am solo waaye yoon bi dañ xam nañ na Touba la dem rëy na lool autoroute bi lu mu bees bees lu mu gaaw gaaw xam naa ni fii ak at yu néew Ila Touba dana fees dell kon prévoir nañu ni ñu ko yaatalee wala mu nekk deux fois de ci kanam bu ko trafic bi laajee dinañ ko mën def deux fois trois voies mooy yoon bu ne ñetti ligne di ci dem. ñett ligne di ci dellu si loolu yëpp boole nañ ko ci liggéey bi Ila Touba tax na ci biir jamono ji ñu koy liggéey lu toll si ñeenti junni doomu aadama liggéey nañ ci programme boobule feyeeku nañu lu toll si ñaar fukki milliards ci ay salaire yoo xam ne ay payer lañu ñu fay doomu réew mi nekk na lu ama am solo ci koom-koom bi waaye jamono ji nga xam ne liggéey bi pare na du tere pour gestion bi lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki nit daañu mën a liggéey ci autoroute bi ñii dinañ nekk ci péage ñii nekk ci yeneen i liggéey pour que mu mën a jëm kanam pour entretenir Ila Touba ñu ngi dënkagum liggéey bi société bi ko tabax muy CRBC donc CRBC va assurer l'entretien et l'exploitation jusqu'à nouvel ordre pour le compte de l'État du Sénégal. Donc je remercie d'abord l'entreprise CRBC, je vais y revenir en français, en rapport avec des prestataires. C'est ici le lieu de féliciter le gouvernement du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, seen gouvernement ndigal yi ma ko joxoon doxal nañ ko ci anam yi ma ko bëggee woon muy liggéey bu gaaw liggéey bu set ah gouvernement bi def na ko kon dinaa la jox félicitation gouvernement bi yëpp moo xam li jëm ci ministère yi ko ànd seq liggéey bi bi ci jiitu muy ministre des infrastructures te tey Abdoulaye Daouda Diallo yor ko ànd ci ak waa Ageroute may gërëm di sant directeur général Ibrahima Ndiaye moom ak ay cadre ak ay personnel gàcce ngaalaama si ni nga xam ne noonu la ñu taxawee. yokk nañu quatorze kilomètres yu bees yoo xam ne tali yu bees la yooyu en plus élargissement de fois trois voies wax naa ko Mbàkke Touba dinañu def yoon bi contourner Touba maanaam kii jël Ila Touba war a dem Daara Linguère wala Matam dina am yoon boo xam ne bu dugg see mën na bañ di yokk circulation biir Touba day leeru Touba. def contournement daal di génn dem yoonam beneen yoon aussi bi nga xam dana ko jaar wetu Mbàkke daañu ko def su ko defee Touba dana am ñaari yoon yu koy wër ndombo ci ay périphérique loolu bokk na aussi ci yéene yi mu fas yéene mottali fii ci Touba ci loolu laa waxtaanoon ak xalif bi di sëñ taxa yal na yàlla yokk taxawaayam yokk wér mu wax mu joxe ndigal aussi ak nangu ñu def boulevard de trente mètres yéen a ko tuddee boulevard trente ci lu toll ci seize kilomètres waaye aussi assainissement ak ay lampes muy éclairage des voies ak réalisation aménagement paysager loolu nag buñ koy wax mooy ci tali yi ñu defar ci ay trottoir ay lampes waaye itam def ci ay garab pour que dëkk bi tam mën a am ay garab loolu mooy cadre de vie bi nga xam ne fas yi ne nañ ko mottali kon mën nañu wax ne liggéey bi ñu mottali tey muy Ila Touba dafa bokk ci li sëñ Touba ci Amadou Bamba waxoon te sëñ Bassirou firi ko lu bare bare ak lu yaatu loolu day wone rek ne jëfam dafa teg lépp ci jàmm suñu borom teg lépp ci liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg lépp ci li ñuy wax la mystique di travail mooy doomu aadama liggéey moo koy mën a jàllale loolu ay principe la yoo xam ne moo ŋànk mouridisme moo waral ñu jàpp it ne Ila Touba bi buñ ko liggéeyee ba pare war nañ fexe ba njëg li nekk tam lu yomb ci doomu aadama yi moo tax Euh, fexe naa ba autoroute bu njëkk bi ñu wàññi njëg yi ba nga xam ni léegi diggante aéroport Ndakaaru ba Touba euh, foofu yëpp daanaka 3000 francs lay mën a doon diggante Ndakaaru Touba boo ci boolee même autoroute bële du passé junni ci ku yor oto bu ndaw wala oto moyen loolu nag jërëjëf jërëjëf loolu lañu sëriñ bi sant muy ñu wax principe yi nga xam ni cheikh bi moom la wax ñu teg ko ci humanisme humanisme mooy lépp lu soxal doomu aadama ñu koy solowoo ñu teg ko it ci njub ak ci liggéey ak ci ragal yàlla mu la foi en waaye fonk doomu aadama nangu yi toujours sacrifice ak muñ muy patience ak tolérance loolu moo waral ñu fexe ba valeur yooyu ni ko sëriñ bi waxee ñu fexe di ko yaatal ci biir réew mi dana nekk njëriñu Sénégal dana nekk njëriñu ndaw ñi. mamaduna faratuna ojeedu sin bamba sa way du ñeewaayu keneen basule gondu jom li tax ñu def lii li tax ñu def lii